waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki àdduna bi mbokki Gabon ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu ngeen gisee tey jii fii ñu nekk mooy libre Libreville Touba Gabon ci karawaan Mayumba karawaan si le trace de Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon karawaan bi nag ren ñu am ay amélioration yu ci am yoo xam ne ñu ngi fii ci bis bi nga xam ne moom la mu libre Libreville nga xam ne ñu ngi fi war a jógee jeudi dem Mayumba waaye bisu libre bi nag moom ci lañ nekk nii waa karawaan bi ànd ko ak waa Touba ca kanam Gabon ñu nekk ak sunu mbokki Touba ca kanam yi sunu mbokki collecteurs yi ñoom soxna Batoor ñoom soxna Maguette Gueye social ñoom sëñ Modou Gadiaga mi nga xam ne mi ngi jógee ba Franceville jël train ñëw Libreville fas yéene ànd ak ñun dem Mayumba ñuy nuyu sunu kilifa Touba ca kanam yëpp la ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadul Abibou Eh, jaar ci sëñ Tako Mbacke Fallilou ñëw ci Cheikh Abdou Fatah Guèye ak eh, mboolem ñi nga xam ne ñoo ŋànk relation extérieure ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen xamal ne tey liggéey bi kat ñu ngi koy ànd ak waa àdduna bi yëpp di ko ànd ak eh, waa Gabon gépp di doxal Touba ca kanam xam naa rek dañuy yemandi foofu bu nu amee ay laaj yoo xamante ne bii am nañ ko rek ñu mën koo jàllale ci Touba ca kanam ni muy doxee ci Gabon. waaw soññe bi rek mooy ñu xam ne Touba ca kanam liggéeyub sëñ Touba la boo xamante ne bi dañ cee am ndigalul xalifa général de Mouride muy Cheikh Mouhamadou Mountakha mu soññee ci soññe boo xamante ne bi kenn mës a gis luñ soññee lu mel noonu nga xam ne loo xam ne da nga koy woote ba noppi njëkk ca jiital ca juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent ak yow muy téeméer nga di ko def pendant lu mat fukki at nga def ko loolu mënta weesu ab soññee képp koo xam ne taalib yëpp sëñ Touba nga nag nga gis xalifa yëpp sëñ maanaam def lu mel ni ci am mbir maanaam mbir moomee nga di ko doy dal kon ah war nañu war ngaa seetaat bu baax a baax sa bopp moo tax Touba ca kanam bépp taalibe sëñ Touba ak foo mën a nekk ci àdduna bi war ngaa fexe ba di ci dugal sa aw ñàq maanaam di ko def comme ni nin ko santaanee nga xam ne mooy dangay ngay dagg carte de membre weeru dee nga yëkkati ñaar téeméer di ko joxe ba noppi itam social bi ñuy laaj par weer itam loo ci man nga di joxe Gabon nag wax dëgg yàlla jàmbaar lañ lool sax ndax ñu ngi ciy góorgóorlu booba léegi doxin wi xaw naa des waaye ci province yëpp yu ñu xam ci Gabon maanaam Touba ca kanam yegg na ca moo xam Port-Gentil moo xam Mouila moo xam Franceville moo xam Moanda yëpp maanaam Gabon Touba ca kanam yegg na fa tey jii sëñ Modou Gadiaga mi ñu taxawal nii mi ngi jël train jóge ba france Franceville ànd ak Serigne Saliou Diop mi nga xam ne mi ngi jógee moom itam Moanda ñoom ñëpp ngir ànd seeg ñun bis Touba ca kanam bi te yemut fii dañuy àndandoo dem maayam ba dem lambare na ñu ngi ci siyaare Serigne Moutada Niass mi nga xamante ne moo ñu teewal Lambaréné ak mboolem kilifa yi nga xamante ne bii ñoom ñoo nekk fii rawatina sunu kilifa nag Baye Aliou Seck Baye moo Gueye sëñ Alaaji Fall trésorier ñoom sëñ Mandiaye Baye ñoom ñëpp rek ñi ngi àndandoo liggéey bi di ko doxal fii ci Touba Gabon. ñaana sëñ Mountakha mu yàgg fi tëweer di jiital ci nuyoo bi nag euh, sëñ Xaasim Sall mi nga xam ne moo fi suñu jëwriñ ak Baye Aliou Seck sëñ Modou Diop Gueye ak soxna yi ñu ko bokkal soxna Batoor soxna Ndeye Afia. ak euh, sëñ bi Gadiaga sëñ Modou ga ñoo leen di ziare ñëpp di soññ suñ bopp di leen soññ di xam ne liggéey sëñ Touba moom la ci waaye def sa bopp nga ko defal sëñ Touba moom sàqum dax la noo ci daanoo rek nga ci taqe ñuy ñaan yàlla may ñu xéewal ñu ciy def toujours ci barka Cheikhul Khadim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax na mbokki euh, tubaa ci kanam Noor Daara ni Gabon ñu ngi leen di bu baax a baax a baax dalay ci nuyoo beeg siyaare bi sëñ Xaasim mi nga xamante ne Touba ci kanam wax yàlla jàmbaar la ci ba jëmmam rek Touba ci kanam la ñu kon ñu ngi koy eh, siyaare bu baax a baax di wax ne liggéey bi moom képp ku la ci soññi rek moo yow ñoo ci ànd ñun nag soññi bi dañ koy dalee Franceville bi nga xam ne fa la ñu yàlla féetale ak eh, mboolem territoire la Gabon ak àdduna sépp fépp foo xam te ne collecteur Touba ci kanam ma nga fa rek ñu ngi lay soññi nga gën a yokk sa eh, taxawaay gën a yokk sa liggéey te xam ne comme ni ko soxna si waxee rek euh, Sëñ Tuubaa moom noo soobaa ci moom rek noonu nga cay tooye maa ñàkkul dara kon nag ñu gën a góor góor lu baax rek gën a yokk pasteef bi fexe ba mu gën a yaatu te ñuy fexe bay collecté muy dem loolu mooy lu ci solo daana jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatulah Modou Gadiaga euh, Franceville ànd ak Baye Saliou Diop euh, jóge Mouanda ñëw fas yéene ànd ak waa Touba Ca Kanam ak waa karawaan bi dem siyaara ji maa yomba incha allah rabbi dellu si bu dellu si tim nekkat ci waaru rek incha allah rabbi. wa rahmatulah maa ngi siyaar sama mbokku bopp yi sama mbokku taalibe yi di bu baax a baax a baax ah, di wax jërëjëf sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg tuwéer si barke Seexuna Ahmadul Xadim ah, ñun nag man nag man maay soxna Batoor mu sëñ Fallou mu tuubaa si kanam di fas yéene liggéeyal sëriñ Touba rek ak ah, ndigal. di ñaanal waa waa kuréel bi yëpp yàlla dafa ñu taw ci barki Seexuna Ahmadul Xadim di sant yàlla bu baax a baax ñu ngi fii pare caravane maa yomba gi di ñaan yàlla suñu borom mottali lépp si barke salaatul fatiha barke sëñ Fallou ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di gërëm suñuy jëwriñ yëpp di gërëm soxna Maguette ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant wax dëgg yàlla mu nekk jàmbaar lool si yoonu euh, euh, murit bi wax dëgg yàlla ak ñoom sëñ Xaasum Saar ñoom ñëpp ku lim rek juum waaw lu may soññee sama mbokk soxna yi rek mooy ñu pasteefu parce que nag euh, liggéeyal Serigne Touba rek moom moo fi nekk moo wóor tamit aussi moom moo nekk loo xamante ni carte d'identité boo xamante ni foo mënti ki dem moom moo moom moo assurance boo xamante ni du am pertement di ñaan képp koo xamante ni soxna la rek dégg sama message bi may jàllale ñoo ngi laxasaayu di leen si woo ñu fas yéene liggéeyal Serigne Touba te yàlla rek tax te bëgg see ànd ak njaboot gi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg Serigne Touba te nekk jullit képp kuy jullit rek bëgg liggéeyal Serigne Touba rek ñu ngi leen siy woo si daraje Cheikh Mamadou Fadal Euh, di leen di soññ bu baax a baax wax dëgg yàlla waa Gabon jàmbaar leen euh, taalibe leen am na luñ gëm ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a wax dëgg yàlla di leen di ndokkeel di ñaan yàlla suñu borom wàcce fi xéewal ñu bokk si milliardaire Seexul Xaddim yi si darajey Cheikh Mamadou Fadal ndax ab taalibe moom am rek moo ko war yal nañu yàlla may ñuy am ñu mën a joxe addiya si barki Seexul Xaddim yàlla bu ñu kenn man Sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul au Gabon, taw Tawfekh production di si ànd ak établissement mbay et frères Techno Habitat ak Digital Store ngir gunge leen ci bisu tedd yooye